tegal ñu ko ci ndigalal way juróom sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhuma daayira bi nag ñoo taxawal bés bu mag bés bi di tàkkusaanu sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu ñu ciy woo bépp jullit di ci woo képp ku naan ashahadu an laa ilaha illallah ashahadu anna muhammada rasulullah di ci woo sunuy mbokki ñaseen di ci woo sunuy mbokki murit di ci woo sunuy mbokki laayeen di ci woo sunuy mbokki tiijaan di ci woo bépp jullit daayira bi nag macha allah ah yal nañu yàlla lafal cat jàppale ñu ñu yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi dugal nag sama présidente Adja Kumba mu wax ñu taxawaayu bés bi ak tolluwaayu bés bi allahuma salli ala seydina muhammadi wa ba ñu sante yàlla julli ci yontam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu bépp jullit di leen yëgal suñu tàkkusaan bi ñuy def fii ci Amosis le 13 juillet 2019 ñu ciy woon ak suñu mbokku jullit yépp comme ni ko soxna Marème waxe daayira Xayru wal Baraka daf koy soog a taxawal di ko commencé reen jii ñu ciy gërëm nag Chérif Ibrahima Aïdara Tijani ci taxawaayam ak ci jàppaleem nii nag la nekkee ak Amou Ciss parce que lépp lu Amou Ciss yëkkati rek moo ca gën ca début ba fin fu ñu toll mi ngi ñuy jàppale ñu koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla may mu eggale mission ci jàmm ak salaam ñu ngi woo nag kat amoo 456. Santanaak Biagi Air Afrique Sofraco bàyyiwuñu fenn ci géejawaay bépp daayira bu fi nekk ñu ngi lay woo di woo xayruwal baraka bi nga xam ne Modou Ndiaye Jamil moo jiite ndax sëñ Modou Ndiaye Jamil moomu moo yore tàkkusaan gi moom ak euh, sëñ Sidi Mbaay bi ne ci xadra shérif ci biir loolu aussi ngërëm li duñ ci fàtte daayra daaira naxlu awlaadu tijaani mm. bi nga xam ne Mara Diène suñu doom moo ko jiite te taxaw jàppale ñu lool suñu daaira ba bu fi egg tey gannaaw yàlla moom mu ngi te biir mooy lijjanti mooy laqati mooy def lépp ñu koy gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér gi yaram bàyyiwunu kenn nag ñi ngi woon ñëpp na ñëpp ñëw daal incha allah xadara shérif bàyyiwuñ ko bàyyiwu ñu daayira wal wala daa ci njiital sëñ Assane Sarr bi ne ci géejawaay ñoom ñëpp woon nañ leen incha allah le 13 amo 6. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi gannaaw bi ñu nuyoo mbooloo mi nuyu ñëpp ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni ko suma présidente Adja Koumba Thiam waxee suñu daayira bi ñu ngi soog a def première édition. takkusaanu sëñ Babacar di ci woo nag ñëpp di ci woo la umma islamiya di ci woo imaam imam yi amo bi 4 5 6 et Santanak Air di woo ñëpp ñaan ñu teel a génn ñu def li ñu war a def ci teel ci daraja rasulullah ñu ngi bootu ci ginnaaw imam Moussa Gueye ak bépp imam bu nekk ci gox bi di woo autorité yi pour ñu jàpp ci suñu takkusaan googu ñëw ñu li ñu fi am ñu bokk ko te boole ko tuur ko ci la umma islamiya ñoom ñëpp ñu doon suñu njiklaay ak suñu nañ ko tàmm ñu ngi ñaan yàlla ñu tàmbali koog bisimilahi rahmaani rahim àggali koog alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jullee si sang bu tedd bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen yëgal sunu tàkkusaan Serigne Babacar Sy bi ñuy de fii si amoo siis di woo 456 yëpp ñoo ngi leen di woo di woo dëkkandoo jàmm si gën bu amoo siis ñoo ngi woo ñëpp bëgg nag ñu teew te teel a génn lool ñëw wuy sunu si kàttanu yàlla na ñëpp ñëw ñoo ngi siy woo ñëpp di woo Adja Seynabou Doucouré bu Serigne Babacar Sy di woo ñoom ajaa Faama Faye di woo Adja Sikam Ndiaye ñoo ngi leen di woo te bëgg ñëpp ñëw ci bés bi jàppale nu si nag ndax amuñu lu dul Serigne Babacar Sy ku nu jàppale Serigne Babacar rek Serigne Babacar fayal la boppam sëriñ Babacar nag moom euh, ker la ku ko lebal guddi mu fay la bëccëg. macha allah lu ñu def ci moom doo ko rëccu kon ñoo ngi woo ñëpp te bëgg ñëpp ñëw nag wuy sinu ndax am ñu lu dul sëriñ Babacar waaw amuñu ku dul sëriñ Babacar bëgg na lu ñëpp ñëw teewe sunu tàkkusaan bi ci kàttanu yàlla yàlla na yàlla may ñu ñu fekke ko ci bark yonent bi suñ ko fekkee yàlla nañ ci mën dara ci barke Seydina Muhammad allahumma salli ala Seydina Muhammad. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ñoo ngi sant yàlla juddu ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne def nag suñu tàkkusaan ji le treize bu soob yàlla ñu ngi ciy woo bépp jullit nag képp kuy topp Muhammad sallallahu alayhi wa rek ñoo ngi la ciy woo ñu ngi ciy woo soxna aas bu maam aas bu Seydi Jamil di ci woo waa xadara Chérif yépp nag man ajaara ma faam invité naa ñëpp mboolem julli rek ku lu ko rek bëgg naa nga ñu suñu tàkkusaan ji nag ñaan yàlla luñ fi ñaan nag yàlla ko yàlla defal dara jee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak sëñ Babacar si barke da baax Malick waaw yàlla nañu ko commencé bàyyi yëgle ko si numéro ci diggante lépp seddu guy ba mel ni glace. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi def tàkku tàkkusaan sëñ Babacar le 13 ñoo ngi woon ak bépp daara. bàyyiwuñu bépp benn daara dëkkandoo jàmm sëgën bi Iba Moussa defar daara yëpp ñu ngi leen di woo ci tàkkusaan sëñ Babacar Si ñu ngi woo murit ñu ngi woo tiijaan ñu ngi woo laayeen ñu ngi woo xaadir ñu ngi woo cene ba cene ba bàyyiguñu kenn képp ki wuyoo asadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah ñu ngi lay woo ñu ngi woo bépp jullit ginnaaw bu ñu sant yàlla jullit ci yonent bi ñu ngi woo bépp jullit wasalaam